بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بوك جروبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنابي سنت يا الله سبحانه وتعالى كنكو باكو كتي خيولي من دفل يونج جولي تي سلم محمد صلى الله عليه وسلم دينان برم سبحانه وتعالى مدلق وامي خيول ممت الصحنام اك صحابي مأندلون ديمب اكيبكو فسيني جارتي ومجارون ba këru pencum yàlla may taxaw mbokk yi ñoo ngi leen di ndokkeel bu baax ci weeru koor bi ñu nekk di ñaan yàlla subhanahu wa mu nangu ñu te nangul leen delsiwaat nañ ci sunu ñetteelu jataay ci tafsir bi ñuy amal di ci ànd ak euh, sunu cheikh euh, cheikhana cheikh Fadal ñoo ngi ñaan borom bi subhanahu wa mu sàmm ko te boole ñu sàmm ñun ñëpp léegi-léegi incha allah ñoo ngi ñëw ci aaya yi euh, ñu jéem a teewlu te taataan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 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى ñoo ngi nuyu mbokk yëpp di leen di leen ziar ah, di kon di eggale ni ñu tàmbale woon ci taxaw seetlu ci ay nekk ca sóot al-An'am ah, te yàlla subhaanahu wa taala joxe ci dénkaane dénk ko xeet bi kon tey ñu yemoon ci ñeenteelu dénkaane bi di dénkaane bu am solo boo xam ne sax dafa nekk actualité mooy yàlla subhanahu wa taala ba mu naan wala taqtulu nafsa allati xarama allahu illa bilxaq ah, bu leen faat bakkan bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala dafa tere ñu di koy faat ludul loo xam ne def ko yayoo ay bii nii kon dangay day ñëw di fende li ñu waxoon ne lislaam moom dafa ñëw di sàmm ay mbir yu bari bokk na la muy di sàmm li nga xam ne mooy bakkanu nit ki di sàmm dundu ah, dundu nit ñi Ah, ginnaaw ba yàlla subhaanahu wa taala dénkaane eh, tere wala boog nga xam ne tere ñu ñu daal di nekk ñoo xam dañuy defee ñaaw téef ngir sàmm lii nga xam ne mooy sunu sunu der ah, lam ca teg mooy sàmm lii nga xam ne mooy bakkanu mooy bakkanu doomu doomu aadama lii yëpp nekkoon ay mbir yoo xam dafa tasoon ca jamonol jaahiliya waaye lu tas tamit si sunu jamono sunu jamono ji ma islam daal di tere ñuy rey ah, ngay faat bakkan bu munti doon te bakkan yi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala dafa tere ñu faat ko bari na bokk na ci Euh, bakkan mi nga xam ne mooy euh, bakkanu jullit waaye bokkoon itam bakkan yi xam ne du bakkanu sax ah, ab jullit soo demee ci suratul maida yàlla subhanahu wa taala man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ardi a ka man fa ka annama axya annaasa jamia ci suratul maida aaya euh, fanweer ak ñaar mu ne képp koo xam ne da ngaa faatu bakkan dafa mel da ngaa faat nit ñëpp waaye képp koo xam ne da ngaa faat dundal da ngaa sauver bakkan dafa mel ni sauver nga soo yàlla subhanahu wa taala fi ab la ci wax bakam dafa nek lu lu général da fay ëmb julit comme da fay ëmb kam ci nekut julit yàlla subhanahu wa taala di fende fat li nga xamne moy julit ni mu nekke lo xamne ne dafa nek lu day war mu ne wa man yaqtulu mu'mina mutaammidan fa jazaauhu jahannama xaalidan fiha wa qadiba Allah alayhi wa qadiba allahu alayhi wa laanahu wa adda lahu azaban azima mu ne képp koo xam da ngaa faat ab bakkan Ah, danga ngaa a ah, ab bakkanu jullit te ba nga koy fàtt yaa ko tey de lay faye mooy ne dafay ah, dem jahannama te dina fa yàgg dina fa yàgg lool te kooku yàlla subhanahu wa moom mere na ko ba pare daal koy daal di rëbb te nag préparé ko mbugal ko méttee méttee méttee métti kon da gis ne fii nii ab jullit moom warta mën a rey ki nga xam ne mooy Euh, mooy euh, mooy mbokku jullitam te jullit mooy ki nga xam day wax laa ilaha illa moo tax euh, képp koo xam ne dafa laa ilaha illa allah lépp loo xam ne dafa aju ci sa deret dafa aju ci sa ci sa der yàlla subhanahu wa taala daf koo daf koo sàmm jullit waratula cee lor wara tam warul ci ci mbir wax yàlla wa taala daal di yoonal sa li nga xam ne mooy alqisaas moo tax wax ci suratu baqara يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى yàlla subhaanahu wa taala nga yoon li nga xam mooy loi mm, di tali yoo nga xam ne képp koo xam ne da nga faat bakkan dañu lay faat yow loolu su ko fekkee ne société dañuy doxee noonu rek gis ne li nga xam mooy criminalité dafay nekk lu lu reculer dafay nekk loo xam ne du du bari lool ndaxte loolu mooy euh, li nga xam ne mooy permettre dañu mën a bañ a suufeel bañ a euh, soofante li nga xam ne mooy euh, ñëw faat bakkan bu fekkee nit ki day faat bakkan mën na cee génn sax daal di joxe rançon daal ciy génn te mu tey ko wala boog euh, tëj tëj ko ay fan yu kaso mu daal génn su fekkee sax nag dafa yaru kaso mën nañ ko defal ma defal ko allégeel ko peine ba loolu kon dafay yombal li nga xam ne mooy moy fat kon yàlla subhanahu wa taala daf ñoo tere li nga xamne mom moy fat ba kan bo xamne da fay wax la ilaha illa allah kep ko xamne lay zahir ba ci mom moy l'islam wu nit ko waratu lu ñëntu leneen ngir mëna a tuur tam ndax tuur deret yàlla subhanahu wa taala daf ko tere moo usama ibn Zayd ci benn xare dafa doon xex ak benn way xex bu méttee méttee méttee xex ak waaj bu way jaar di tëdd ci suuf mu nara xàcc nar dóor waaj ne laa ilaha illa allah mu laat koy rey mu ñëw wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mer dafa meroon bis boobu xonk cuur nan ko nan ngay def ak laa ilaha illallah waaye ñëwee ànd ak laa ilaha illallah yawmal qiyaam Usaama Zeyd naan na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom daf koo wax rek ngir daal di mucc man kon saaba amoon na sax prétexte boo xam ne wala amoon na contexte boo xam ne mën na wax ne waaye daf ko pour mucc waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gën a mer ne kon da ngaa xotti xolam ba xam ndax da muy wax laa ilaha illallah dëggu ci moom wala dëggu ci moom Usaama Zeyd nee na dama doon eh, bëg eh, dama doon ñeetu du juddu Euh, wala dugg ci lislaam après bis boobu ndax tiit gi mu tiit ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mer gi mu mer euh, ngir ni mu rey nit koo nga xam ne wax ne laa ilaha illa dafa nekkoon ci jihaad boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko mu nekk loo xam ne lislaam daf koo légiféré euh, ndaxte jihaad dafa nekk loo xam dafa may condition yu war a yu war a remplir bokk na ci condition yi nga xam ne jihaad dafa war a remplir mooy ne mu nekk ci ginnaaw ab état ab amir suñu waxee état nag mooy état boo xam ne dafa am shawka dafa am doole nekkul état moom day profité ci fitna bu jullit ñi nekk mu daal di génn daan ne man état la comme ni ko Daesh defee daan ne ab état la ñëw di euh, di rey di rey jullit déedéet foog ne état boo xam ne dafa am shawka boo xam ne nit ñi dañ ko euh, nangul état état boobu mu nekk ci ginnaaw ab gouverneur am ab raaya naam moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon naan al imaamu junna ndax kii nga moom imaam moom ab bouclier la naam euh, yuttaqa bihi wa yuqaatal kon loolu mooy condition ba jiitu dafa am condition beneen boo xam ne mooy nit ñu koy def nekk ñoo xam ne dañoo am doole moom mu nekk tamit les ala i kalimatillah moo tamit la koy tax a jug mooy euh, li nga xam ne mooy euh, euh, kaddu yàlla subhanahu wa taala mu am ay defe ñu koy defee kenn du rey jigéen kenn du rey koo xam ne ab màgget la kenn du rey ab bu nekk ci ci ci église am kenn du yàq kenn du taalay ay ay garab kenn du yàq loo xam ne yàq ba amuta amuta amut njëriñ kenn du ci xaru loolu yëpp nekk ay règle yoo xam ne da ngay fekk ci lislaam di doo dugg ci téere boo xam ne téere bu gudd la ci fekk lu ngi fekk règle yooyu noonu léegi nag nañu xool comparer loolu ak li nga xam ne moo xew sunu sunu jamono ay nit ñu jóg di wootewu seen bopp nañu topp sunna di jël nag li nga xam ne mooy teru Euh, euh, baatu jihaad daal di koy yàq comme ni ko ahlul bidaa di faral defee wax na si ahlul bidaa ñoom dafa bokk seen i defin mooy sax day ñëw fekk lislaam loo xam ne sax nañ baat ba ñu ñëw ci baat boobu jël ko daal di koy dëxëñ yi daal di ciy dëxëñ ay ay mbir moo ta day jël baatu jihaad na la ci dëxiñ loo xam ne bokkul ak jihaad musa doon jihaad ana jihaad boo xam ne ñoom yu rey mooy ñuy wax laa ilaha illa allah ngi bañ Usaama ibn Zayd rey kii wax laa ilaha illa allah ci suuf Usaama in Zayd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak moom mer mer ba Usaama Zayd moom la bokkoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënoon a bëgg doon ñeetu moom bëggoon naa nekk koo xam ne dafay day dundu wala boog day tuub ginnaw ba ba lii amee ndax tiit gu mu tiit ci bis boobu noonu waaye léegi nag lan la ñuy wax koo xam ne day fekk ay nit ñuy wax la ilaha illallah di julli mu ñu explose explosé foofu noonu rey leen fekk fa ay xale ki mag ki ndaw da rey leen ñoo xam ne defuñu ko dara loolu naka la mën a nekkee jihaad fi sabilillah naka la ñuy fekkee ñoo xam day ñëw taal fitna ci dëkk di rendi xale di rendi góor di rendi jigéen di wan rendi ñoo a ne moom a doon lu dul réer koy def la ngay kon jihaad da ngay def nekkul jihaad fi sabilillah wala jihaad la musta yëkkati fenn kàddu yàlla ca kaw bal day jël kàddu yàlla jël kufur teg ko ca teg ko ci kaw kàddu yàlla subhana taala ñaata dëkku jullit la ñu def seen jihaad yooyu la mu permettre rek mooy daal di mabbal sax lislaam nga fa nekkoon permettre yéefar yi ñu ñëw fa di rey seeni rey seen i mbokk yi seen i mbokk jullit sàcc seen i pétrole euh, violé seen jigéen daal dem seen yoon nga xam ne seen jihaad boobu ba tey moo xam ak Ben Laden la moo xam ak Boko Haram la moo euh, lu du la euh, crime nekkul lu du ay euh, banditisme ban lan fan la njëkkatee li nga xam ne mooy kàddu yàlla subhanahu wa taala bal dañoo ñëw sax permettre kufur mu daal di am doole am doole ci dëkk yooyu daal indi takkal li nga xam mooy deru derul islam takkal ko takk boo xam ne tey bépp jul dafay ñëw taxaw war a war a wu ci ñoo xam ne l'islam moo leen dépassé fuuf fuuf fuuf fuuf ci sàmm li nga xam ne mooy mooy mooy bakkan kon lu jiitu l'islam amul fenn fu mu daggane ne nit mën a taxaw moom euh, euh, ñëw di rey ay ay jullit di leen ak lu mu mun a joxe comme prétexte ci lan ci kàddu ne moom dafay jihaad fii fi sabilillah ndax loolu dafa wuteeg li nga xam ne yonent yàlla subhanahu wa taala moom la ñu digal dafa wuteeg li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom loo digal dafa wuteeg li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon doon ah, doon doxalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallallahu wa sallam yemut sax si tere rey rek daal di jullit l'islam yemut ci rem kese sax ci rey ab jullit waaye l'islam dafa tere sax faat bakkan boo xam ne du ko jullit ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci xadis yu yu yu bëri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, di tëkku eh, tëkku gu metti koo xam ne dafa rey koo xam ne dafa sëkk jullit ñi eh, jàmm soo demee ci saxiix al Buxaari yi di nga fa fekk xadiisu bi nga xam ne Qays ibnu Xafs moo ko moo ko ko ci عبد الواحد بمو صلوك كون نيوز سنة بيمشي جيحي عبد الله ابن ابن عمر مجلك شنو النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا لم يره راحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما هنا كيف كو خامني دفا راي بكن بو خامني دفا أم أهد مو مكجولني سوما هي أهد أكجولني بارنا مهم دك بوم دك مو دفا مك دفا مك جام دك دك جولني بيو بنا بنا دك ودفا مك جولني جام دون مانيا جنال ولا دفا جوجي دكم ñu may permettre mu dugg dëkku jullit te suñu jamono jii lan moo koy matérialiser mooy visa yi ñu may nit ñu dugg ca wala ab beneen jullit moo ko invité mu ñëw wala sax bal dafa dëkk ci dëkku jullit yooyu dafa dëkk ci dëkk ci dëkku jullit ya ñu bakko fa mu dëkk fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee kooku te du ab jullit képp koo ko xeetu àjjana doo ko doo ko xeecu mu ne xeetu àjjana doo ko xeecu te lii nga xam ne mooy xeetu xencu àjjana nit ki mun nañ ko da ngay xetu àjjana boog nit ki dina ko xencu ci doxinu lu mat ñeen fukki ñeen fukki ñeen fukki at ci beneen riwaaya mooy man qatala muahadan lam yarax raaxat aljanna wa inna reeha la yujad masirati arbaina aman boobu xadis boobu muslim moo ko moo ko solo ci même ci même mu xadis abu hurayra tamit ba tey radiallahu anhu mu naan man qatala muahadan lahu dimmatu llahi wa dimmatu rasulihi lam yarax raaxat aljanna wa riixuha la yujad min masiratin sabiina aman bu ay xadis yooyu ñëw di tere di faat koo xam ne sax du ab jullit koo xam ne dafa nekkul ak dafa sëkk ak jullit ñi euh, euh, jàmm moo xam ne danga ngaa dugg dëkkam pal nag nga dugg dëkkam moom moo la fa may moo la may autorisation nga dugg nga ñëw daal di wor nga boole ñaari mbir rey bakkan boo xam ne yàlla sonn da tere ba pare daal di wor war ñoo xam ne dañ jox dañ laa wóolu ba dugal la seen seen dëkk nag soo ñëwee dëkk boo xam ne dëkku dëkku jullit France États-Unis dañ la jox visa loolu jox visa mooy kon euh, ab pacte boo signé ak ñoom la wala bokk ab euh, suñ xamoon da ngay ñëw fii wala da ngay ñëw fële wala da ngay ñëw dëkk ab yéefar di fa def fi attentat wa dee rey la chaque dun na may nga dugg yow da ngay ñëw di war te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne warkat nga yowmal qiyaam da ngay yorub étendard wan ciy bind diw moom diw mi warkat la moo war moo nit nak meuna ñu kon est-ce que na seen bopp ci l'islam ba pare def seen projet ñom moy daal di tour ay tuur deret tour deret nga xam yàlla subhanahu wa taala def ko tereet yàlla nan la taqtulu an-nafs allati harrama allah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam min al akbar al kabair al ishrak billah mune ne bàkkaar yi gën a mag mooy yàlla subhaanahu wa taala ci moy mooy an nafs yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ittanibu ittanibu as-sab'a al mubiqat moytu len bàkkaar yi nga xam ne bàkkaar yi alakaata lañ bañ ko laaje qaalu yaa يا رسول الله ومن هن لأن ما يبقى كاريوي ينتبه صلى الله عليه وسلم الشرك بالله وسهر وقتل النفس تعب تدي شرك رك نحن بوكا لي الله سبحانه وتعالى أبتدوا لب لهم ديجم تي بوكا لي الله جن إسلام نمشي تك ماي إيه؟ قتل النفس وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أكيد ين حديث يوم ينتبه صلى الله عليه وسلم منكوي منكوي نودي كي ترى دي إيسيستي دراي بكان كم حديث بن عمرو بن عمرو بن عمرو منكو منكو سولو ينتبه صلى الله عليه وسلم لم يزال المؤمن أولا لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما عبد الله بن عمر نان نعم، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله آه، كي خامن مو عبد الله عمر كون مو امنا مير يوي موي باخي غا خامن كيب كو تي دوغ سا بوب كو تي دوغ سي امول لين لو tour deret boo xam ne lislaam def ko def ko tere suñu wax tuur kon deret bi lislaam tere daf julli da ciy dugg yéefar da ci du ci du ci du ci sallallahu alayhi wa ci sàmm loolu ci sàmm li nga xam mooy ahad mooy jullit ñi dañoo am ak sekk ak ñoom jàmm encore une fois tey lii matérialisé jàmm jooju jullit ñi sekk ak ñeneen mooy dëkk yoo xam nekk ñu en guerre su fekkee dañoo nekk en guerre guerre ñu koy def sama ay militaire moo tax soo gisee ay xale yu ndaw jug euh, seen kër naan dañuy demee jihaad yi nga xamul luy jihaad jihaad su am ab gouverneur mooy ñëw daan ne jihaad am na ñii ne ñoom jihaad yi su koy def ay militaire am ñoo koy defi ñoo euh, te la koy tax a jug mooy euh, ngir défendre dëkkam wala ngir daal di yëkkati nga mooy kàddu yàlla subhanahu wa taala ginnaaw ba mu ko préparé ba mën ko te xam ne du andi mafsada bu te su koy def day respecté mbir yu bëree bëree boo ko teg pour mu pour ko waaye du ay civil ñooy jug naan dem jihaad ak ñu koy jihaad loolu musta doon na li ne mooy mooy mooy jihaad bi nga xam ne moo wér yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala man dalama muahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatih aw axada minhu shay'an bi gayri taybi nafsihi aw oo minhu shay'an bi gayri tibi nafsin fa ana xajijuhu yowma alqiyama mu ne képp koo xam ne dangaa tooñ koo xam ne mu ahad la moo xam ab la bu ñëw dëkk ba moo xam koo xam ne dafa euh, dafa dëkk ci dëkk ba mu képp xam ne nga koo tooñ wala sax nga suufeel ko wala sax nga teg ko ci ci liggéeyloo ko loo xam ne moom attanu ko wala wala nga jël lenn ci moom te moom mu forcé ko jël ko te bëggula koo jox mu ne ko man maay doon ki nga xam ne moo koy layal yowmal qiyam الله اكبر كي نك لا مانا ديغلي لي غان موي كون راي كو ملني نك لا كو مانا نك لا كو مانا ديغلي رياض ارباد ابن ساري رضي عنه ميغي نان ميغي جيلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارباد ابن ساري ميغي سولو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا باذن ولا ضرب نسائهم ولا اكل ثمارهم ida aatawkum alladi alayhim mi noon wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne daganot ngeen di dugg ci kër ñi nga xam ne ñooy ahlu kitaab li yahuud nasara loolu ñoom dañ leen di jox ndigal ngeen dugg ca daganot ngeen leen di ngeen di dóor seen i jigéen daganul ngeen di lekk seeni i meññet lu dul ñoom ñoo leen ko jox kon da gis ne lislaam amul kenn ku mën a ñëw jox leçon ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ci mbir yi amut kenn tamit ku mën a ñëw na da ngay jox li leçon asalafiya ndax salafiya ñoom lii la ñuy topp mooy li xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li salaf sa daa topp képp koo xam na ngaa ñëw di askana seen bopp ci ñoom daal di wàcc li yow yaa nekkul ci ñoom la ñu la ñu nekk comme ni ay nit ñu baree ñëw di askanar ci ay ay mbir ci ay kuréel te waa kuréel goog taxaw na bokk bokkuñu ci ñun <laughs> rawate nag kuréel goo xam ne nekkul kuréel goo xam ne nit a ko soos nekkul kuréel goo xam ne ci xel la ko basé wu nekkul kuréel goo xam ne ci gént la basé wu waaye dafa leer ca kaw daan ne ki nga xam ne mooy ab salaf mooy kii tepp alquran ak sunna ala fahmi salafi saalih fan la alquran ak sunna fahmi salafi saalih daal di dagane ne mbir yu mel nii fan rey ay jullit eh, tuur eh, ay déretu ñi nga xam ne eh, dañoo am ak sëkk julit ñi ay ay jàmm wala boog sax nag euh, di woote jihaad yoo xam ne amul benn condition bu ca euh, bu ca remplir la chèque na loolu ko ñëw di ko teg ci deretu ahlu sunnati wal jamaa mooy li tuwaay di wax rek celui qui veut tuer son chien lui accuse d'avoir la la rage waaye ñoo gën a xam ne ñi koy gën a sori mooy ahlu sunna wal jamaa bal ñi taxaw di ko xeex di taxaw di ko xeex ci ay adilla yu leer nañ lu kenn mënut a indi mooy waa ahlu sunna wal moo tax. Euh, dañuy indi yenn ci waxi borom xam-xam yi nga xam ne ñooy borom xam mu ahlu sunna jama jamono ji ci ni seen discours leere ci tere mbir yu mel nii ci tere li nga xam ne dafa jénn li nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala digle dafa jénn li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di daal di daal di kon cheikh bun baz rahimahullah ne moo nekkoon mufti diyar saudia dañ ko laaj ne ko yadunnu albaad min alshabab an mujafat alkuffar man hum mustawtinuuna fi مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من ne ko kon am yoon أمي jàpp ne li nga xamne moy taral jëmale ci yéfëri ñi xamne dañu dëkk ci dëkk julit ñi wala bok ñi xamne ne ñu jógee leen dëkk ci yéfëri ñëw ci dëkk julit ñi loolu la bok ci sharia amna na sax ñenn si ñu jàpp ne ray leen dagan na ñu gisé ci ñom lo xamne dafa wuté ci sharia cheikh bu magal tontu la yajuzu qatlu lkafir almustawtin aw alwafid almustamin alladi adxalathu dawla amina ولا قتل العساة ولا التعدي عليهم بل يحالون فيما يحدث منهم من المنكرات للحكم الشرعي وفيما تلاه المحاكم الشرعية الكفاية mu ne daganut di rey koo xam ne yéefar boo xam ne dafa dëkk ci dëkk jullit ñi wala boog mu jógee beneen dëkk daal di ñëw ci dëkk jullit ci état bi moo ko may permission pour mu dugg fa mooy ci visa lay duggee daganut tamit ñu daal di rey ñoo xam ne sax dañuy mooy yàlla subhanahu wa taala wala boog di am di transgresser si ñoom di def injustice si ñoom bal li ngay def mooy su fekkee da nga gis lu loo xam ne leen naqari Euh, wala kii mooy yàlla nga daal dem wax ko euh, tribunalu ju euh, jullit ñi léegi nag su ko defee tribunal ñooy gis ñoom lañu war a def l'islam nekkut fawda moo tax nit tekkul yaay gis mu ngi ci mbedd mi sax yaa koy yaa koy réglé soo gisoon nit ñi nekk def njaaloo ci mbedd mi nekkul yaay ñëw ne yow da nga koy da nga koy réglé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi bi yadee képp comme da nga gis ab ab ñaawteef ko dindi sa loxo ki nga xam mooy gis ñaawteef di ko dindi ci loxoom am pouvoir moo am pouvoir boo am peut-être sa kër la nga ko yor wala nga pouvoir bi mooy kon yow mi gis ñaawteef ñu bedd mi amoo nekkoo autorité soo ñëwee naan da nga koy dindi yow la ngay def mun kar la soo mënoon nag kon yow su nekko sultaan amoo pouvoir u dindi waxu ñu am doole de mais amoo pouvoir bi yow doo doo gouverneur doo juge doo policier fa bi militaan yi nga dindi ko ak sa làmmeñ mooy soo nekkee ku xam-xam-xam nga bëri nga ko garab nga mën ko ñëw daal di inkaar ko daal di wan ne li daganoot nga daal di koy def su fekkee ne mënoo ko nga naqare ko sa xol loolu la lislaam jàngale waaye jàngalul fawda te lii mooy asalafiya te borom xam salafi yu ne lii la ñuy wax seen i téere moom fees ca dell lii lañ jàngal jeunes yi lii lañ jàngal ñi nga xam ne ñooy ñooy منك لا جينك ونرجو منكم بيان معنى حديث أخرج المشركين من جزء العرب فكثير من الناس يستدل بهذا الحديث على قتل المؤحدين المستعمرين ليكون عندك هو يوم قال لي حديث بيد واحنا جينا لنا يفري شي العرب اه مش نكون احنا فهم ني بري نكاي تكتلو دي راي اي نيغا خامني داني دوغ سي دكو جوريت ني فيك نيوم نيوم اي باكت نيو نيك نيو خامني داني امان شيخ من بعد شيخ فوزان عفوا رحم آه، حفظه الله مدن موي إيه؟ انهم يسمون هذا التخريب يسمونه الجهاد في سبيل الله وكذ وكذبوا وكريم انه والله الجهاد في سبيل الشيطان من ني نيوم ني تودي سين ياقي ديستركسيون ني ديف ماي كي تودي جهاد في سبيل الله من والله كاتش ناني لا ني ديف موي جهاد في سبيل الشيطان من الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ولن عندي حديث غام ينتبي صلى الله عليه وسلم تيتري لي خامني موي راي سبب ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق من حديث ينتبي صلى الله عليه وسلم بغينا لو تري ني راي جليت ني دوغتي او يفري دوغتي كير جليدي top duñ fi jógee nan ngay fekkee borom xam-xamu salafiyuun yi amul nag exception tàmbalee ci Cheikh Bon Ba Cheikh Alban rahimahullah suñ doon liir ci li mu wax ci mbir yu mel nii da ko xeex ba ci lalu lalu faatoom la doon xeex lalu faatoom bokk ñi lam doon digal jullit ñi lam doon dénk ñi fa nekkoon mooy ñu moytu mbir yu mbir yu mel nii nga xam ne ndaw yi ñu koy am na ndaw yu koy tàmbale di jël yoon boo xam ne du yoon bi nga xam mooy yoonu islaax du yoon bi nga xam moom la charia jàngal du yoon bi nga xam moom la islam jàngal du yoon bi nga xam moom salafiya Euh, jàngale nekkoon du yoon bi nga xam yoonu euh, alxawaarij yi nga xam ne ñi leen di ñii gën a sori ñi leen gën a sori mooy ahlu sunna wal jamaa ñi gën a jege mooy ñi nga xam ne ñooy ñëw di ko accusé ahlu sunnati wal jamaa soo jëloon na euh, cheikh ki nga xam ne mooy cheikh al Uthaymin rahimahullah ay waxam ci majmul fatawaam loo ci du du doy Eh, soo jëlee demoon ba Égypte jël ki xam Ahmed Shakir Mohamed Shakir am nay fatawa yu bëree bëri def na ko ci loolu soo demoon ci ba Algérie ba dem ibnu ibnu Badis loolu Cheikh Taqiyul Hilaali ca Maroc dëkk boo mënti dem fekk fa boroxamu salafi yoon yi nga xam ne ñoom lañuy dellu ci ñoom dañuy fekk ne mbir bi dañ koo leer ba mu leera ba mu leer naa ba mu leer nañ waaye nit ñi nga xam ne ñoom seen bànneexu bakkan lañuy topp amuñu lay dañuy fekk loo xam ne ni kii di ñu jënd ak koy bëgg daal koy bëgg a daal koy bëgg a kole comme ni yéefar yi ñi dee jëlee lislaam di leen bëgg askane li nga xam ne mooy euh, mbir yi nga xam ne ay ñaawteef la ay mbir yu bon la noonu la waa yi nga xam ne seen bànneexu bakkan lañuy topp bëgg a jëlee mbir yi askane ko ahlu sunnat wal jamaa te ahlu sunnat wal jamaa ñoom dañ cee dañ ba seen wàcc bal ñoom rek ñooy ñi nga xam ne ñooy xeex ñuy xeex mbir yi nu qayidumo illa billah bil xaq xaq boobu noonu yonent bi sallallahu alayhi mooy ko mooy ko leeral euh, moo tax ñun ci xadis xam ne mooy dere jullit di munta dagan bi wax laa ilaaha illa dagan lu dut ne dafa def ñetti mbir mooy mu nekk ak say bu nekk koo xam ne dafa dafa sangay ba pare daal di daal di njaaloo ku def adultère kooku kan moo koy rey kon nekku nit ñi kooku euh, juge mooy def atte ci ci moom ak mbir nga xam ne ñëw na condition yi nga xam ne dafay remplir pour ñu mën a def atte boobu ci ci moom ak yu bari bari islam li islam indi wala mu ne comme dafa bàyyi diineem daal di murtad ba tey kooku kan moo koy def saa bi ñu waxee pen si lislaam ki koy def mooy njiit jullit ñi nekkul ne individu ñoo koy ñoo koy def nekkul may jénn gis nit ne kii dafa murtad ma rey ko daal dem yoon déedéet nekkul may gis nit njaaloo ma ñëw dama koy dama koy dama koy euh, lapide beneen moo el mu faarixlu jama mooy ki nga xam dafa ñu jénn jënn topp fekk njiitu jullit ñi mu jënn ko ngir na indi fitna kooku tamit euh, euh, bokk na ci xaqam jullit da njiitu jullit ñi mën naa teg euh, li nga xam mooy pen ci pen ci pen moom kon lii nga xam ne mooy xaq bi nii ba tey du wuteek li nga xam ne moom lañ doon wax mooy ne nit ki su fekkee dafa def yu mel nii dafa jën ci islam wala wala wala ki nga xam ne mooy gouverneur moom ki nga xam mooy décidé ne kii mii war nañoo def pen ci moom waaye individu yi moom su fekkoon ne nekk nañ dëkk boo xam ne atte wuñu charia amuñ sañ-sañ def ko ñu dëkk boo xam ne euh, euh, bu mel ni Sénégal nga xam ne ci lu bari ñu charia ci wàllu pen yi euh, amul kenn ku sañ taxaw fekk nit kuy njaalo wala nit comme si dafa apost nga dama koy dama koy rey soo ko defee da ngay wuteeg li nga xam ne moo nekk mooy mooy charia ndaxte lépp luy pen l'islam ñi koy appliqué mooy gouverneur yi li Allah subhanahu wa ñoom lay adressé wu lu jëm ci wàllu jihad moo xam défensif la moo xam jihaadu nasra moo xam jihaadu talab la eh, ka mooy gouverneur moom ak eh, armée ak ñi mu digal ñu ñu def ko waaye du individu yi kon ci aaya bi ñu ngi jégalu ji gudd na lool ci li lañu bëggoon leeral dafa dama jëm amoon na solo ñu leeral ko mën nañu dem ci bi ba sub suba incha allah ñu jéem a eh, eggale aaya yi ci des jéem ko jeexal barakallahu fikum asalaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu wa fiikum barakallah والحمد لله كن بكي نيوك ديغلو يالنا يال سبحانه وتعالى دا فنيو ديغ توك نيغي جين جوخ ديغ دجي ان شاء الله بسوغا ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته